ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine ñaar fukki fan benn ci weeru diggi gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppook ñeenti fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak juróom benn dafa bokk ci lim yu fatt yi kon tey ci altine ji rafetul ci dara ñaanuk bis bi yàlla yàlla nag ma jéggal samay ñaawteef ak sama réer ak sama ëppal ci mbir yi ak lépp loo xam ne yaa ma ko gën a xam allahuma axfir li xatiati wa jahli wa israafi fi amri wa ma anta aalamu bihi minni xaddiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na saytaane naagu na ci way julli ñi ñu koy jaamu ci dunub arab waaye nag naaguwul ci yàq seen diggante dugal ci ak noonoo ak fitna xaddiis bi muslim moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shaytaana qad aysa an yacbudahu almusalluuna fi jazirati al arab fi taxriisi baynahum rawaahu muslim liman